asalaamaaleykum wa rahmatullah waa yombal yëgle ba jàmm ngeen fanaan man la Seet Touré bëggoon a ñëw tey rek si ay e, xabaar yu jógee si dencukaay yi kuréel gi yore ñu wérgu yaram si àddina bi ñu ko OMS waaw si dencukaay bi sitam bi am lu ma fa jëlee e, ma yaakaar ne su ma ko dugalee si tubaab dina am njëriñ ci ñi mën a jàng waaye su ma ko jéem a firi si wolof teg ko si yaakaar naa dina baax léegi fi ne nii si njëkk mooy ñu ne euh, tenez-vous au courant des dernières informations sur la flambée du Covid-19 disponible sur le site web de l'OMS léegi na fexe daal di yëg yu mujj waaw dégg-dégg yu mujj si maanaam yéeg bi nga xam ne maanaam euh, maanaam euh, virus bi mu ngi koy yéeg te yooyu si duggee ci dencukaay OMS danga ko fa fekk euh, ñi xam ne ñoo yore mbir wér-gu-yaram si réew yi itam ak si gox yi ñoom it ñu ngi koy yore léegi ñu ne prenez soin de votre santé et protégez les autres en suivant les conseils si après na ngeen toppatoo sa wérgu yaram seen yaram te ngeen musal ñeneen ñi si topp digle yi ñëw nii premièrement se laver fréquemment les mains avec une solution hydroalcoolique ou à et au savon léegi di raxas di raxas sa loxo lu bëri ak ndox mu ànd ak alcool wala ndox mu ànd ak saabu ndox ak saabu ñu ne lu tax pourquoi se laver les mains avec une solution hydroalcoolique ou à l'eau et au savon tue le virus s'il est présent sur vos mains mais lu tax ndax euh, soo raxasee say loxo ak euh, jaxasee bu xam ne ndox la ak alcool wala nga raxasoo ak ndox ak saabu loolu dafay rey virus bi su fekkee mu ngi say loxo ñaareel bi ñu ne deuxièmement éviter les contacts proches maintenir une distance d'au moins un mètre avec les autres personnes en particulier si elles toussent éternuent ou ont de la fièvre ñu ne moytu euh, maanaam euh, di jege jege jegeante waaw bu ëpp dangay fexe daal ba daan daande nit ki lu toll ci meetar euh, rawatina nag su fekkee nit ñi dañuy sëqat wala ñuy tisooli wala ñu seen yaram di tàng ñu ne pourquoi parce qu'une personne infectée par un virus respiratoire comme la Covid-19 tous ou éternue elle projette de petites gouttelettes contenant le virus si vous trop près vous pouvez inhaler le virus ñu ne lu tax ndax nit ku xam ne jàngoro bi daf ko dugg su fekkee ne bu mel ni Covid 19 bi léegi su fekkee dafay saqat wala muy tisool yi dafay génne ay toq-toq yu ndaw yu xam ne dañuy virus bi daf siy nekk su ko defee soo ko jegee lool mën ngaa dugal lool ci sa biir troisièmement ñu de se toucher les yeux le nez et la bouche léegi moytu di laal say bët sa bakkan ak sa gémmiñ ñu ne pourquoi les mains sont en contact avec de nombreuses surfaces qui peuvent être contaminées par le virus si vous vous touchez les yeux le nez ou la bouche vous risquez d'être en contact avec le virus présent sur ces surfaces ne lu tax ndax euh, loxo yi dañuy laal ay euh, béréb yu bari yoo xam ne mën nañoo euh, yore maanaam biris bi ko defee soo laalee nag say bët wala sa bakkan wala sa gémmiñ léegi biris bi mën na dugg si yow waaw maanaam léegi su boobaa euh, vous risquez d'être en contact avec le virus présent ci si surface léegi virus bi nekk si maanaam béréb yooyu noon léegi mën nga koo laal waaw euh, quatrièmement respecter les règles d'hygiène respiratoire ñeenteel bi ñu ne nga topp euh, digle yi jëm ci cet waaw cet bu jëm ci mbiru noyyi se couvrir la bouche et le nez avec le pli du coude avec un mouchoir en cas de toux ou d'éternuement. le mouchoir immédiatement après dans une poubelle fermée et se laver les mains avec une solution hydroalcoolique ou à et au savon. ñu ne na nga muur sa gémmiñ ak bakkan léegi léegi Eh, ak maanaam sa boo leemee sa loxo eh, conc bi féetee suuf ci diggante booba mooy pli di kudd wala nga fekkee da nga eh, sëqat wala nga xam ne da ngay tisool yi léegi nga def ko si diggante boobu noonu wala nga def ci si si benn mouchoir waaw mouchoir bi nag ñandukaay su ko defee ñandukaay boobu nag soo ñandoo rek nga sànni ko si defukaay mbalit bu xam ne dafa tëju ko defee nag nga raxas say loxo ak euh, ndox mu ànd ak alcool wala ak ndox ak saabu ñu pourquoi ñu ne se la bouche et en cas de toux ou d'éternuement permet d'éviter la propagation des virus et autres agents pathogènes ñu ne maanaam muur sa gémmiñ wala ak sa bakkan su fekkee da ngay sëqat wala ngay tisool yi mën naa tax nit moytu maanaam jàngoro bi walla ak yeneen virus bi wala yeneen euh, yeneen yeneen yeneen yu xam ne dañuy joxe xopp léegi maanaam tasaaroo juróomeel bi ñu ne tenez-vous informé et suivez les conseils de votre médecin na ngeen fexe daal di yëg lii xew te dëj yi te ngeen topp itam digle seeni euh, docteur waaw ñi leen di faj daal rek te vous au courant des dernières évolutions concernant la Covid-19 léegi na ngeen fexe ba yëg yu mujj si maanaam euh, virus bi ni muy yokkoo waaw si àddina bi suivez les conseils de votre médecin topp leen seen ndigal ndigali seeni fajkat des autorités de santé nationale et locale ak euh, kilifa yore mbiru wérgu yaram ci réew mi ak ci gox yi de votre employeur ak euh, ki leen di liggéeyloo pour savoir comment vous protéger et protéger les autres la COVID-19 ngir xam nan ngeen di aaree seen bopp ak nan ngeen di aaree ñeneen ñi ci virus Covid 19. mais pourquoi lu tax ce les autorités nationales et locales qui disposent des informations les plus récentes sur la propagation ou non de la Covid 19 dans la région où vous vous léegi ndax yi kilifa yi nekk ci réew mi ak ci gox yi ñoom ñoo yore euh, dég-dég yi mujj mooy xabaar yi mujj. léegi si maanaam virus bi ni muy doxee ni muy tasaaroo si yow gox bi nga nekk elles sont les mieux placées pour expliquer ce que les personnes dans votre région devraient faire se protéger ñoom daal ñoo gën a xam ni ñu war a fi ñu toll daal ñoom ñoo war a gën a xam ak gën a mën wax nit ñi luñ war def wala luñ war a def ngir yàlla musal leen ci jàngoro bi juróom benneel bi mooy mesure de protection pour les personnes qui se trouvent ou qui se sont récemment rendues au cours des quatorze derniers jours dans des régions la Covid-19 se propage juróom benneel bi mooy ay euh, dogal wala ay moytu yu nit war a def ngir mucc eh, maanaam pour mucc maanaam ay nit ñu xam ne daal dañ nekk wala dañ demoon ci fukki eh, fan ak ñeent yu mujj yi si béréb yu xam ne maanaam virus bi am na fa léegi ñoom nan lañ war a def ngir ñu a mucc waaw jërë ngeen jëf mbokk yi xam naa gudd nag moom nañ ko xaaj waaye nañ ko def benn rek ko defee nit ñi man koo déglu dinaa ko boole nag ak bind ba waaw nit ñi man koo gis jërë jëf